waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu nu sant yàlla julli seen sant Serigne Touba di sant suñu waajur noo ngi leen di sant bu a baax a baax di leen dalal jàmm yéen waa presse bi wax dëgg yàlla li ngeen di def lu baax la ndax yéen a ngi gindi askan wi ku ñuy gindi askan wi yéen la recensement bi nag bi yàlla dogalee ñu def ko ba arrêté keroog ajjuma lañ taxaw xëy na am na ñoo xam ne déclaré guñ la ñu lakk ndax nanguwuñ koo déclaré waaye li nga xam ne moom lañ jot a déclaré mat na 1 milliard 475 millions ci ñi nangoo déclaré rek 1 milliard 475 moom lañ jot a kii waaye nag bari na ñoo dañ ne dara ci àdduna du leen jaral daal di wax la lakk lakkale ndax dañ ko bëgg a bàyyee yàlla mi nga xamante ni moo leen ko tegoon. léegi nag ci biir loolu it wax dëgg yàlla ah ku mel ne sëñ ah, sunu sang bu tedd bi sëñ Mountakha joxe nañu fi 100 millions ma ngi ci compte marché bi. Ah, président de la république joxe na 50 millions mi ngi ci compte marché bi Mbuub joxe na Serigne Mbuub bu bu. chambre de commerce bu Kaolack joxe na fi 2 millions mi ngi ci compte bi Madi Keñang joxe na 2 2 euh, millions mi ngi ci compte bi sëñ Ablaye docteur Ablaye Ñaan joxe na fi 100000 mu ngi ci compte bi Serigne Fallou Ndiaye gindi askan wi joxe na fi mille mi ngi ci compte bi euh, Serigne euh, Souley Diagne joxe na fi million millions mi ngi ci mi ngi mi ngi nii moom dugalaguñ ko ab segla la waaye Pape Diop joxe na fi 1 million lépp mu ngi ci compte ba ko waaw ak ak sëñ Fallou Ndiaye gindi askan wi joxe na 100000. léegi waaw ñoom de xam naa da da noonu waxtaan nañu ñoom ne leen wax dëgg yàlla xëy na mënuñu leen a fay ndax dëgg la yàllaa ko teg yàllaa lañu ko teg ndax mënuñoo dajale lu mën a fay loolu waaye buñu sañoon danañ xam li fi yàqu nu mu toll. pour bi de xam naa mat na ay cent 400 400 personnes à peu près 402 personnes pour l'instant ñi déclaré laa loxo de mais am na ñoo xamante ni ba léegi nanguwuñoo déclaré. 402 personnes daal jot nañ ne am nañ ñoo xamante yàqule nañu